ginnaaw investiture yi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall daan na koy def bëri na ñoo xam ne ci coalition Benno Bokk Yaakaar dañoo daal di fippu ñii mer ba mara de taal yi ñu baree bari timit daal di yëkkate ay kaddu wax ne dinañu def li nga xam ne mooy vote sanction Fallou Bousso di responsable politique APR fii ci Touba moom dafa jàpp ne tànn bi président Macky Sall tànn ci département bu Mbacké dara baaxu ci moom sax jàpp na ne président Macky Sall wegul ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci département bu Mbacké moom responsable politique APR bii nee na dina def kem kàttanam ngir benn bokk yaakaar ñàkk ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal daat nay wax timit ne président Macky Sall amul lenn lu mu def Touba lu extraordinaire ndax hôpital bi mu fi def. da ko fee war a def comme ni mu ko defee ci yeneen gox yi moom Fallou Bousso daal di wax ne Macky Sall faalewul ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ndax bu fi ñëwee ci Touba li fi xew ñépp teg nañ ci seen bët ñu teewloo ay kàddoom ma décision boobu du décision bu baax parce que ay nit boo leen di tànnal nit da ngeen di respecté te rawatina toll ne local local du présidentiel du législatif local mbirum gox la ay nit ñooy xool ko leen doy ñu jiital leen te day fekk sax mu nekk candidat yu bëri ñu xool ban moo ci gën ñu tànn ko parce que ay nit boo leen di tànnal waaw da ngeen di tànnal koo xam ne xam nañ ko dëkk nañoo ak moom du sax mbirum boddante wala dara waaye koo xam ne daal vraiment daal xam nañ ko bu baax baax ci dëkk bi gis ci social gis nañ ko ci action yu bëri bëri bëri bëri waaw loolu moom moo tax tànneef ko waxee ba léegi man lépp lu ma man ci contrecarré ko ak xeex ko maa ngi ci yàgg naa ci liggéey te bu neex yàlla fii ak ay fan nit ñi dinañ gis ne liggéey naa ci liggéey bu am solo. d'accord léegi yow kon kon yow léegi li si benn bokk yaakaar bi da ngay bokk si ñi koy xeex pour mu pour mu ñàkk wala lan. waaw incha allah rabbi loolu de laa bëgg bu neex yàlla te dinaa ci am taxawaay boo xam ne mosuma ko am ci benn taxawaay ci benn élection parce que élection yi dafa xaw a particulier bu baax a baax a baax a baax moo tax lu ñu ci mën dinañ ko ci def président Macky Sall li war ci Touba mi koy def dara nag lu exceptionnel amu fi hôpital yi muy def moom lay def jam ñaajo moom lay def tout le monde ci Sénégal loolu te te loolu moo ko war du xaalisam xaalisu réew mi la ñun ñoo ko moom fépp Sénégal yi nekk war nañ laa mën defal hôpital war nañ laa mën defal li nga bëgg kon loolu du duñ ko ci sant duñ ko ci gërëm loolu devoiram la te loolu moo ko fa bàyyi leneen li nga def dañoo gis ne politique bi Macky Sall teguñu fenn waa tubaa euh, bu ñëwee Touba yow gis nga la fa xew ñu ko gis duñ ko dégg duñ wax ak moom boo waxee politique lu non loolu yàgg na am waaw ñàkk faale gi moom yàgg na am parce que lu mel ne Touba nekk fa ay deux millions personnes nekk fa tànnoon la leen nit koo xam ne di nga ko jox fonction bu dëgër mu mën a xool nit ñi lam ca am mu mën koo bokk nit ñi euh, loolu mu am loolu rek doy na sëkk rek ci ci misaal président bi moom damaa jàpp li mu nekk sax xam naa ne tëyu ko laay parce que nit booy def dara ay at gisoo ci résultat war ngaa mën a changer ndaw ya fa nekk digluwu leen joxu na ay responsabilité faalewu leen dam doon doxee depuis 2012 ba léegi moom lay doxee xamul dara lu ci changé Touba gis nga ko mu def gis na def Mbàkke bañ na ko sax ba buy tànn sax ay mbokkam lay tànn boo gisee galo ba nga gis uh, ki mu tànn foofu Matar Diop uh, nga xam ne moom ay mbokkam lay tànn lu mel ne Touba nga boobu ba léegi nga nekk fii bay bëgg a jeexal sa mandat war a dem ca mosoo a bàyyi la xel mësul leen kenn koo xam ne moom daal doy na waar daal. moom responsable politique bi daan nay wax ci Abdou Lahad Ka mi nga xam ne jamono ji jotoon na mu daal di jébbale li nga xam ne. mooy lenge yi. wax dëgg yàlla man jàppoon naa ne même bu ko sëñ bi woowee sax nekk yoo lañ ci jiital sax moom war naa a wax leneen bàyyi ñeneen dem ndax Touba tamit vraiment ay nit di sët Serigne Touba di ay taalibe am xam-xam am ay idées yoo xam ne jàpp nañ ne bu ko defee Touba dina développé boo defee sa pàcc ba mu jeex da ngay bàyyi keneen ñëw def waaye lii lépp ñu yooyu ñun ay taalibe lañ ñun loo dugal sëñ bi rek lu ñu neex ak lu a naqar dañ koy muñ mais moom ci boppam moo waroon a am taxawaay boo xam ne bu ko defee képp ku dëkk tubaa di nga ko fonk di nga ko jàpp waaye mënoo nekk ci place heure bu ñu la waxee nga ne man ci man su ma sañoon dama fiy jugee te yow heure bu ñu la joxee nga jël ñun nag ay taalibe